mangoog ah, ñi ngi jéggalu ci dog-dog boobu xajoowut ci coobare waaye ah, waa nawek ñoo demoon waaye kon ñi ngi ci génératu bi insha allah mangoog na ci jikko yooyu mag ñi yoore woon muy jikko bu am njëriñ muy digle lu baax tere lu bon maanaam bañ seetaan bu fekkee ci kër gi nga nekk bul nekk ci kër di seetaan lépp luy lu baax nga gis ko waa kër gi di ko def moo xam xale yi la wala jigéen ñi la wala kum mën a doon nga ñaax leen ci ñi góorgóorlu ci waxtu woo gisee ñi def lu naqari yàlla nga jéem wax ak ñoom pour ñi bàyyi ko waaye rek ku nekk xëy rek romb sa morom dem loolu buñ ko defee dana uti ak jikkoo mag ñi njëkk ñi jikkoo mag ñi njëkk ñi mooy man sa doom sax su ko fekkoon ci mbedd mi muy def lu dowul nonu sañ na ko aye, aaye waaw sañ na ko aye. aaye su ma ko fekkoon muy xulo wala xex sañ na ko teggale su ma ko fekkoon mu nek di def lu dowul ci mbedd mi sañ na ko aye. aaye ci mag ñu njëkk ñi la jikko bu baax la won kuy aaye xale xale jambur ci mbedd mi pour mu def pour mu nek ci lu bon kon na kër gi so ñewé ci kër gi do sétan sétan bobu nga xamné dem nañ ba kenn ñimeetu do wax doomi jambur dara lolo mo ñu yobbe ba ñimeetu la wax sa doom dara waaw maanaam boo gisee bu yonent yàlla Muhammad diglee rek góorgóorlu def bu teree bàyyil ndax léeg-léeg su la ne bàyyil nangam baw la ko dafa am lu ci wàlli si xam nga bi ñu waxee ne maanaam nañ yar xale yi même xale bi sax wax na ne booy julli ji booy jàpp àndal ak moom booy julli ji àndal ak moom na ko nañ julli bu amee juróom-ñaari at mooy seven years bu amee fukki sax boo ko ne julli nga mu ne déedéet lu tax julli wala mu bañ utali yar nga ñaf ko yér mànde ji moo wax loolu léegi nag ñu ne ñun dañuy seetaan xale yi nu ñu neexee buñ jullee suñ yoon nekkut ci buñ baaxee suñ yoon nekkut ci luñ fanaanee suñ yoon nekkut ci luñ xëyee suñ yoon nekkut ci ñu dem ba nga xam ne mbedd mi li ñuy gis ci mbedd mi ñemewuñ cee wax dara li ñuy def li ñuy gis ci kër gi dootuñ ci wax dara léegi seetaan ñëw na te seetaan nag mook saytaan dañuy niroo de seetaan ak saytaan gis nga ni niroyee seetaan ak saytaan booy seetaan boo oytuwu rek seytaane dana ñëw muy ci kër gi wala ci office bi wala fu mu mën a doon ku gis lu la naqari ci sa liggéeyukaay xool borom nga wax moom ci njëkk ak ku ko gis ci kër gi ku ko gis ci réew mi noonu la buñ seetaan kon digle lu baax tere lu bon loolu mu ngi bokkoon ci euh, jikkoo mag ñu njëkk ñi salafu saalix waaw ñom bokkon na ci seen jikko diglé lu baax téré lu bon ba paré di muñ lor ga ca nek lor xam nga bu diglé lu baax téré lu bon dafa and ak méttit léeg ñi la ñi wax lu naqadi nga wax nit lo xamné deug la waye deug gi moko neexut mu dem créer créétal la problème dégg wala mu wax wax ci yow lu ñaaw wala mu tuumaal la dégg rawati na jamono bi ñi nek nak waye lor yoy da ci nek sa fatte wut ko ndax alcorane ngay wax naan لقمان غاي واخ دوم جي نانكو وامر بالمعروف وانا عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور 17 لقمان يونت يالا لقمان غا دون واخ دوم جي نكو دل ديغلي لو باخ دي تيرل لو بون موي غاي اي لو بون تا غاي موي لور جي لا سي فك تا غاي موي چونا يلا سي فك نده لولو موي تكتل ني ام يو ام غا دوغو mooy tey ne am nga dogu waaye boo dooree wax lu baax ci kër gi léegi ñi dëkkal la foo dëkku di la tuumaal nga baax non non bul bàyyi soo teree soo soo dooree di oote jëme ci yàlla di wax nit ñi lu baax ñi koñ bi commencé di la romb ñenn borom alal yi commencé di la takkal seen takk takkal seen kanam ndax lan lu baax la ngaa wax continuer rek waaw loolu mooy aadaab doomu aadama mu ne continuer rek wasbir xalaa ma asaabaka lépp lu la ci fekk ci ay jafe-jafe muñ ko ndax inna zalika min azmil umur loolu mooy tegtal ne yow ko am dogu nga waaw kon digle lu baax tere lu bon mooy fos jikko bi buñ ko bàyyi rawatina ci jamono bi ñu toll ci réew yi ñu toll léegi ci démocratie yi ñuy oote buñ noppi ci digle lu baax ak tere lu bon démocratie ak Euh, dégg nga démocratie nit ak démocratie mbaam du benn démocratie nit mooy mooy ku nekk ñu jox la sa xàq kuñ bi lan mooy xàqam xale lii xàqam mooy boo ko gisee muy def doxul noonu nga dimbale ko loolu mooy xàqam di nga yar ko waaye xale xàqam du da nga koy bàyyi noonu rek muy dem di boo ko defee def parce que mu amagul xel xamagul li koy jëriñ kon buñ nekk démocratie mooy ku nekk ñu jox la sa xàq xàqi doomu aadama kay bokk na ci mooy xale bi nga yar ko waaye xale ba léegi ñemeetu la ko yar léegi soo ko bëggoon a laal wala nga def ko dara bu la booleeg police ñu eew la dégg nga jigéen bi ko yàlla ebalee ci góor daf ne ar rijaalu xawaamuuna ala nissaa jigéen góor ñi ñooy dimbale jigéen ñi ñoo leen di jubbante ñooy seen sang léegi yow ñu jox la ñaari jigéen ba ñett ñi moo la leen a wax dara dégg nga lu leen neex def la démocratie du loolu démocratie ci ci ci ci lu neex waaye def bu ñu waxee nga jiitu ca police ba toog hmm? loolu du démocratie loolu démocratie mbaam la xam nga démocratie mbaam euh, mbaam fu ko neex mu yuuxu mbaam mooy ñëw fekk nit ñi di julli ci jumaa ji wala mu fekk nit ñi nekk ci cooñ bi rek mu yuuxu yoonam nekkut ci xaax xaax ba mu neex ko fu ko neex mu saw fu ko neex mu seben loolu mooy démocratie mbaam waaw kon digle lu baax tere lu bon xaaye na loolu njaboot gi seen xàq mooy yar leen jigéen ñi seen xàq mooy jubbanti leen teg leen ci yoon waaw nit ki boo koy jox xam dam ko war a teg ci yoon waaye du danga koy liber jox ko eh, liber liberté boo xam ne lu lu ko neex def loolu du démocratie kon nañ jël ko boobu ñu bàyyi ko xel bu baax mooy digle lu baax tere lu bon te muñ nag mboolem mbooleem coono bu ñu jay fekk loolu imaam yee ko moom doxaat yee ko moom yar yi ci kër gi ñoo ko moom ñi jub ñi ci office bee ko moom ku gis loo war a wax te xam noo koy waxee te war koo wax rek wax ko nga moytandiku nag loo warta wax am na loo xam ne mën naa doon dëgg waaye war la ko wax noppi ci am na loo xam ne dëgg la mën nañ koo wax waaye yow amula amula doolee wax ko soo ko waxee lor mën na la caa fekk am na yoo xam ne loo xam ne dëgg la waaye duut fii nga ko war a waxee fi nga ko bëgg a waxee nii du palaasam boo ko fi waxee du am njëriñ kon ootekat bi yàlla dafa waxoon ne na oote bil hikmati la waxoon wam wa maisatin daf koy xereñee li ngay wax seetal fi nga koy waxee ndax yaa ko war a wax mom deug gi ak bokay wax noo waxe leg leg ngay wax deug sax yaq ko ngay digel nit ki nga wax ko fasa ngi digel bo xamne da fay tax sax mom mu meral la baye la fekk ci nang ko waxel kon digel lu bax ter lu bon ànd xereñ moy jikko bu jekk bi ñaari li jikko bi ci mag ñu jekk ñi mag ñi ngay deg ñi naan mag ñi mag ñi mag ñi aka baxoon salafu salih nangam bokkon na ci seen jikko biñ te wuñ ko dem de nga moy annasiata li kulli muslimin wa taawanu ala al birri wa maanaam ñoom jikko bi ak biñ génnee soriwuñ mooy laaxante biir waaw laaxante biir mooy advice nit ki su fekkee gis nga lu baax loo xam ne yaakaar nga ne baax na ci moom nga dimbale ko ci waaw soo amee loo ko dimbalee ci am am nga dimbale ko ci waaye ndimbal li yëpp nag na tegu ci lu baax xam nga nit mën naa nekk ci lu bon nga dem fekku ci di ko ci dimbali ah loolu yàlla daf ko aaya waaye dimbale ko ci birru ak taqwa birru mooy njekk ak tiraanga loo xam ne mu ngi lu baax la nga mën ko ci ay dimbale ci kàddu wala ci jëf dégg nga lu mu mën a doon wala xalaat bu rafet nga dimbale ko ci waaw léegi léeg nga gis nit mu nekk ci koñ bi soxla liggéey nga toog ba mu yàgg rek nga dégg ne xam eh, na benn compagnie bu ubbi nga ne ko diw mu ne ah man de dégg naa dëkk sàngam ubbi nañ fa benn compagnie sa xale bi am na liggéeyam doo ko dimbale mu dem foofu dégg nga nga nekk ci place liggéeyukaay dégg ñu ne diw sàngam de barab sàngam soxla nañ fa liggéey nga yaa ngi dëkk dëkkandoor bu baax nga ne ko diw mu ne ah, man de place bi ma nekk liggéey bi baax na te dégg naa ñee ñi ngi soxla nit doo ñëw foofu noonu nga is sa kayit yi dégg nga demet ak ah, diw mu ne ah mu ne ko yow sa doom yi ci kër gi di wër nii ah, diw sàngam ni ubbi daara ju baax doo ko fa yóbbu ñu dem jàngi fofu nit ñi seen njàng ma baax na de dégg nga waaye bu fekkee ne safaan bi la su ma gisee ju baax wala ma gis iskul bu baax wala ma gis liggéey bu baax dam dem jëli koo xam ne bokk ma ak moom dara moo maa gënal sama wax ko dëkkandoor bi ma dendal wala sama mbokk mi soo ubbee place muy place yu liggéeyukaay mbokk yaa ngi lay jege te ñu ngi ko soxla nga jël leen ñi liggéey fa te ñoom bu ñëwee njëkk ñi liggéey ko ci ragal yàlla baña jàpp ne suñ mbokk ko mom waye dañu gis liggéeykat boo xam ne palaasam ba mom mbokam du fa liggéey ñeneen lay jël ñeneen kon laaxante bir ak dimbalante jikko mag ñi la won nañ ko bàyyi xel bu baax hadith ba ñëw ne ad annasiatu an-nazi'atu قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ينتبه صلى الله عليه وسلم yonent nee na diina mooy laaxante biir advice nit ki diina mooy loolu waaw mooy dimbalante ngir yàlla laaxante biir ngir yàlla dig digalante lu baax ngir yàlla ngir yàlla digalante bu eh, eh, dégg bu aju ci alxuraan ci ndigali yonent bi ci ndigali nit ñu baax ñi ci mboolem nit ku baax laaxante biir ngir yàlla loolu mooy diina kon ku gis lu baax na nga am yéene bokk kook nit ñi ku am lu baax nanga nga fas yéene bokk kook nit ñi waaw docteur bii de bu man a faj la ma ne demoon naa fa faju yàlla def na ma faju diw mu ne ah mu ne ko yow yaa ngay jàmbatu doo dem ci barab sàngam ku gis lu baax nga advice ko nit ki daal loolu bokkoon na ci jikkoom mag ñu njëkk ñi waaye bañ gis lu baax di ko nëbbu nit ñi mu mel ni yow rek yaa bëgg lu baax yow rek yaa bëgg lu baax wala yow yaa war a am lu baax loolu bokkut ci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 ci jikko mag ñu njëkk ñi salafu salih ñetteeli jikko mooy wa yuxaafisuuna ala adai arkaani alislam wa yajtahiduna fi qiyaami annahu min huda nabi sallallahu allah alayhi wa sallam wa tutximu tahaama wa afsu salama wa kasratu sadaqa manam dan nañ gor góorgóorlu lol ci pile islaam yi salafu salih do len fekk ñi sagane julli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 yonent bi sallallahu alayhi ak yonent ko jiitu woon daan ko jëfandikoo euh, mangoo ñeenteel bi mooy ci jikko yooyu waxla wax la fukki jikkoog juróom-ñaar salafu saalix yasbutuuna fi mawaqifi imtihaani kama qaala tabaraka wa taala wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi wa juuci wa naqsin min al wa anfusi wa samaraati wa basiri sabirin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 ci nooni ngeen am noon bu leen di sonnal dello ko ci yàlla rek yàlla ko ëpp doole na leen nattu ci ñàkk wala yàqute alal ak lu mel ni ki nawet bu baaxut wala doom yu dee wala mbokk yu dee jegañaale yu dee lii yëpp naa leen ci nattu waaye nag yunitu yàlla muhammadu bigalal mu muñ kat yi hmm. salafu saleh ñi ngi bokkoon ci muñ kat yi ñoom waaw sabru indal balaayi wa sukkri indal raqaayi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 waye dogal bu naxari delo ko ci yàlla lu jefe la ta alquran nee inna ma yuwafa sabiruuna ajruhum bi qirisa ñi muñ ñi muñ dogal yi neex yeeg yu naqari yeb ñi muñ ko ñi muñ ba dépasser sen alal muñ ba dimbalante muñ ba digle lu baax te lu benn ñooñu dina len fay lo xamné bi xayri hisabin moy duñ ko calcul ken mënu ko calculoon amul ben machine yi bu ko mëna a ndax bari non la ko alquran waxe waaw léeg-léeg yàlla dana fay nga def benn mu fay la fukk ni mu ko waxee ci alquran léeg-léeg da nga def benn ñi fay la ko seven hundred comme ni ñu ko waxee ci suurtu baqara waaye yàllaa ngi ne léeg-léeg nga def rek ma fay la ko loo xam ne kenn mënu koo compter waaw am na benn waaye dafa jékki-jékki rek mais yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaqi li jalaali eh, yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaqi li jalaali eh, سبحان الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال سبحان الله سبحان الله maanaam bi mu jàngee ñaan gi ñaan gi toqagut ci xol bi dana ñëw bi mu ko waxee rek malaaka yi doo commencé di ko bind tiyaaba ji ci nekk bind bind bind bind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 فله رداء دغا ام غرمال يالا ومن سقط كمرنا كنتبا فله سخط دغا ام مرام يالا te surtout foo ko dégg mooy mer moo xam ne ngërmande du ci toppati loolu hadis la boo xam ne ci sunani tirmisi la nekk inna isama jasaay maa isamil balaay inna allaha isa ahaba qawman ibtalaahum fa man raddiya fa lahu rida wa man saqita fa lahu suxt kon muñ nattu yi muñ nattu yi ci jikkoom mag ñu njëkk ñi la woon salafu saalih waaw seen jikko woon kon yow itam góor góorgóorlul man ak yow ñu góorlu ci jikko boobu noonu danañu dimbale kon danañ ko topp ñu ngi war a dem ci juróomeelu jikko bi ba keroog ñiy egg ci fukki jikkoog juróom-ñaar yoo xam ne soxla nañ ko ci jamono ji waaw ñaan gi ma doon wax léegi ñëw na yaa rabbi lakal hamdu kama yambaqi li jalaali wajhika wa li azimi sultaanika